moo fi finaalu lese bi jël ko. luur yi sax am na si ñu si nekk moo leen mën. mu ngay bëre kaamil la xeexkat la. mu ngay bëre. waaw xam nga fii lu bëri gars yi ay naax la ñuy bëree am na si ñoo xam dañuy bëree tànk am na si ñoo xam dañuy bëree loxo mais Kaw Gourdin day bëree tànk day bëree loxo soo ko songee da lay dóor tànk dalay jàpp dëbb la naax plaqué la day as day manuel xale bu doy waar la macha allah. lan mooy as. as mooy li nga xam ne mooy da ngay këf daw ak moom. xam nga dafa am maap gis nga jëli na tànk ba booy bi bañ booy bi bañ rasu mu dëpp ko naax waa ji di ko kortu mu tëgg ko mbot rof ko ca waa waaj bañ mu génn ak waa ji di ko kortu mu tëgg ko mbot rof ko caxabal waa ji bañ mu génn ak moom Cheikh Babacar yaa ngi koy bëreloo moom Cheikh Babacar yaa ngi koy bëreloo kot su Cheikh Ndiaye ngongu kii mooy kot su Boy Niang waaw Babacar xam nga lamb fi mu Kaw Gourdin dafa dugal loxoom si biir Kaw Gourdin kott ko mu bañ rëpp Kaw Gourdin nga ca biir nag njool mi dafa aj loxoom ci kaw Kaw Gourdin bëtt na ko mu bañ Kaw Gourdin jëli na tànk ba ca suuf fàq mu ñëw Kaw Gourdin bañ na Kaw Gourdin téye na ca gannaaw ngemb la nag ngembal ko daw wër ko tuur ko Kaw Gourdin téye na ca gannaaw ngemb la nag ngembal ko daw wër ko tuur ko ko tuur tey Babacar tuura ngi. Babacar yaa ngi may reporté loo. may wax gis nga Kaaw Gourdin mi da xale yi bàyyi xel. dafa bokkoon si groupe boo xam ne ay petit ñaa la. ay ndongoloo. ñooñu dem nañ. mu des fi bëre mag la yore. dafa bëre ndoog mag yi mais xale la. doon koo xam ne Dalifor dañ ko yónni yaakaar ko xale bu mën bëre la. waaw taw fe Kaaw. waaw Babacar sama sëriñ. kaaw kaaw ah maay sa sëriñ kon. waaw. xamu woon. sama sëriñ de. li tax nga doy waar. waaw noonu la demee ñaanal ma rek. mais saaru bëri yi ngay bëri lan la. Tombé Sène moo ñu ko jox. Ah, la yor. waaw. Ah. keroog yaa final woon tey yaa final woon. sant yàlla rek yàlla sunu borom jàppale. kenn juuf na dalay daan. waaw sunu borom yàlla nañu jàppale. arbitre soufflé na Kaw Gourné à gauche Diène Diouf à droite Kaaw ak Diène Diène Diouf jëli na ko waa Diène lu mu nar Diène te nga def ndànk dina ko daan de Kaaw bañ na de. ñu nga ca suuf de kaaw ak jéen kaaw dana koo bëgg a waaxu wala jéen a ko bëgg a waaxu jéen a ko bëgg a waaxu am yàgg maar lam njool la njool ak ndaama kaaw dimanche passé samedi passé moo jël lese bi jéen ne na ko duma la ba de du ko bàyyi de kaaw dinañ la daan de kaaw mbaa duñ la daan kaaw mbaa duñ la dóor gourdin yi ay kaaw yaag jéen waaye kaw daa mën a bëre jàppante ba dëgër na trop jàppante ba dëgër na trop jàppante ba dëgër na de kal na ko oo oh! kal na ko oo oh! ay waay kaaw gourdin waay ay waay kaaw gourdin waay waa yàgg maar kii xanaa mooy Messi Kaw Gourdin daan na ko bu yàgg waaye xanaa kii mooy Messi kaaway Messi waay waaye gis naa Messi si de xale bi mën naa bëre de kii li muy bëre teg na ko ci yoon de ca suuf yàgg maar ca suuf moo doy waar. oh Kaaw waay jéen jógal.